mais loolu nga xam nga loolu la ko waa FEMSEL waxee ñun wax nañ ko noonu assemblée nationale mais ñoom duñu leen déglu ndax jàpp na ne lu leen di wax comme ay intérêt askan la du seen intérêt ñoom te yaakaar bokk askan yi war nañ ko man di xool pour di def li nga xamante ni mooy bëgg-bëgg askan ba seen dem ak dikk yomb yi fi am lu koy war a yëpp mooy bokk si ay insécurité bi boo fa demee tey tey autour boo fa dee gaa guddi gi da ngay tëj lu nekk mën na fa traverse amul ay lampe amul dara te ñun dañ fay fay si xaalis kenn xam nu mu doon di arnaqué askan wi di ko yóbbu maanaam France bàyyi peuple bi di kooku. mais yéen bi nag Mbacke ku leen dégg day mel ni Macky liggéeyul dara. mais xam nga juróom-ñetti atam yi liggéeyul fi dara jour ngeen gis ay réalisation xam ba ci beneen maa ngi nii ma ngay sampi pont. xam nga li ma lay xamal mooy. Hmm. ñun duñu makk liggéeyul mais li mu liggéey dafa doyul ni mu ko liggéeyee baaxul. baaxul waaw ndax li tax mooy fekkente ne dafa jël àllu réew bi waaw suñu alal la jël pour liggéey li muy liggéey xam nga Macky liggéeyul suñu alal la jël ndax boo mu toon alal ñu xam ñun ñoo ko leb ñun ñu si ñun lañ ko lebe du ko def ndax Macky donga mun ko def kon am na Sénégal bi am na Sénégal bu ñu ko joxee tey jii mu tollu si parce que ay euh, milliards yoo xamante ni kenn xamul lu mu toll yaakaar naa ni vingt mille milliards joxagul nañ ko ko Macky Sall vingt mille milliards ku mu ko jox nga xool par rapport li mu fi def si ay projet est-ce que méngoo naa loolu te lenn li daf ko leb bokkul ak benn milliard yi nga ko génn mhm. ay bor te bi fi Ablaye Wade jógee deux mille milliards la fi bàyyi woon xoolal Macky Sall Ablaye Wade diggante boo défense boobu ni mu toll daanaka double na ko moom bu mu fi Ablaye Wade jógee bàyyi fi deux mille milliards mi ngi si huit mille mais est-ce que ëppul ay ambition. Euh, non ambition ambition yi comme comme yenn ambition la am. yoo xam non c'est c'est que fi maanaam moom li mu engagé ci ay chantier. xam nga li mu engagé ak suñu bëgg yóbbu réew mi. xam nga barki démb rek chantier dafa rëy yaa ngi tudd BRT bi léegi. yaa ngi gis euh, yaa ngi gis ñu lancé abrogatoire euh, abrogatoire boo xamante ni ay bor yoo xamante ni parce que 36 milliards et 35 milliards yoo xamante ni AFD moo ñu koy moo ñu koy lewal yaa ngi gis ay coopération entre. sénégalo-turc yoo xam ne ay bor la encore mais xam nga man bu ma yoroon réew mi lu ma ne du ma leb mais bala may leb damay nekk ba nga xamante ni laaj naa sénégalais yi wax ak ñoom ni leen léegi yéen bu ma lebee fan ngeen bëgg ma defal leen ko ñu ni fii leen bëgg mu dem lebi xaalis boobu def toogaat maanaam quatre ans. ah di président nag boo demee nag moom Mbacke bañ dénk la réew. bu fekkente war ngaa xam. xam nga xam mooy métti ci réew. am nga moom pale ba mu toog. waaw xamul la xew. Macky Sall. ah bi Macky Sall xamul li xew si réew mi. ah bon Macky bu xamul li xew si réew mi ak insécurité bi dana fa bàyyi réew mi chaque semaine mu génn benn njëriñ askan bi. lu ministre yi di jëy. kan mais ministre yi moom liggéeyi. ministre yi Macky Sall yi ay tuunal xamul fu ñu def seen tànk. tuune ñii am na ñoo xam ne mais bu tuune amutoon amandement bi mel ni nit dama ko génn. na <laughs> nag moo ma ni tuune ministre yi. Matar Cissé amandement bi mu def bu ma doon Macky Sall bu fa yend ndax lii dafa yàq deru askan jarul peuple jarul république ndax jàpp naa lu mel nii rek war naa tax ka moom mu xam ne ministre liggéey man boo ma doon moom damay tas gouvernement bi tas dàq ñu fi nekk ñëpp seet ñi nga xam borom mi xam-xam lan xam naa ne doo xamaat beneen mandat boo ko defee ñu liggéey pour que. yaa wax ne da ngeen a wax a wax ba sonn mais président Macky Sall ubbi na ab cadre ngir ngeen ñëw fa ñëpp sottante xalaat di wàllum dialogue bi mais ba léegi nii yéen waa bokk gis-gis rawatina bi ñu bëree bëree bëri duñ dem toog ci table ji ndax day mel ni dañuy cautionné li Macky di def nii. xam nga Ahmed euh, lay sant si laaj bi. dialogue national ñaata la ko xam nga xam ñun. boo ñuy woo muy borom responsable la. boo ñuy woo dafa am ñoo ñuy wooyee. te lépp loo xamante ni ban tàmbalee ba léegi nii Macky Sall lu mu ñu mas a wax si dialogue bi def mais comme woote waat ne yoonu mujj bi ku ne xam na ne bi mu wootee gis nga ma fa président Pape moom ma boo ko gis-gis ak délégation bi ma àndoon mooy premier lancement jalo fekk ba mu nekk màgg ba ma tooñ ko doon waxante man ak moom ci lu passé woon démb ndax 90 laa xamante ne Macky Sall boobu lii am amul muy ñëw sama bureau papa man naa ko daal dugal bu masaa ñu assemblée nationale 2002 2003 yooyu noonu yor benn station bu soom pour di bëgg liggéey ah bëgg Ablaye Wade sa sa jël ko euh, jël ko son papa la doon jaar comme kooku xam naa ko xam naa su ma ne xam naa ni ma ne xam naa jikko Macky peut-être que xaw na bëgg lu baax mais ñi ko war baaxul dañ ko yàqal. nga ne peut-être na bëgg lu baax. xaw na bëgg lu baax. mais xaw na bëgg. bëgg lu baax wala xaw na laa la wax xaw na. Ah, mais ñi ko wër. président de la République kay bëgg na lu baax. te dañu koy yàqal yow Macky Sall mi ma xamoon 98. xam ko 2000 bi muy ñëw si ñun. Hmm. ak Macky Sall mii dafa wute. ah ndax Macky Sall mii tey fu mu waroon a toll tey jii may wax ak yow fu mu waroon toll mooy ubbi buntam. mais ubbi na ko day leen ñëw leen. yaatal ba pare lu mu wax. am ñu ñëw te ku dem sax nga xas. ba lu mu wax mu sàmm loolu. gis nga ñun bu ñu demee ci. Euh, dialogue bi dialogue national bi. Hmm. après ñu ne léegi nañ def dialogue politique. ñun suñu parti dem nañ fa am nañ koy représenté. dialogue politique bi waaw. ci général bi. waaw dialogue politique bi dem nañ fa. Hmm. mais dafa ay commission yu ñu yóbbu. yoo xamante ni man moom la ñu porté pour que ñu jolo bi ñun lii mooy li nga xam mooy suñu euh, suñu euh, bëgg-bëgg pour que mu njariñu askan wi. benn nañuy def bulletin unique ñaar nañu ubbiwaat fichier bi ñett li nga xamante ni mooy affaire mandat yi. na ñu respecté constitution bi. ak élection maire bi. élection maire yi ni ñu koy fale baax na nas bi nañu ko dindi wala ñu xoolaat nañu koy defale lii mooy suñu préoccupation loolu la posé mais Macky dafa am ñu mu tànn ñoo xam ni ñu tekkiwul dara lañ amuñu baas amuñu mbokk ba pare asta askanu si bopp jéppi leen. mu jël nag si wetam ba pare maanaam. bëgg seen xel yoo xam ne ma leen tànn wala gaa yi seen parti ñoo leen. fa yónni moo leen tànn ñenn ñi. ba pare. ah bon daf leen di a dew. non kaw. ñenn nekk si biir Jolof. Famara Ibrahima ma ko. mais li ma dégg si moom jàpp naa bu ko dugal ci yenn erreur mais fi am na ñu ne si biir ñoo xamante ñoom ñi ngi bëgg ñu dindi limitation mandat yi ñoo xam ne ñu si biir dialogue bi ah bon waaw. te loolu Macky Sall moo leen ko sant. président nga toog ba doyal. Macky Sall moo leen sant ni jéem leen wax loolu. ndax foofu doo mën a mën a ndax conseil ah, yow li ngay wax nii doy yow conseil constitutionnel xam na ne bu fa Macky Sall yóbboo pour que naan leen ay troisième mandat wala bii mooy sama deuxième mandat dañuy risqué loolu ndax conseil constitutionnel xamal nañ ko ni ko suñu doon yi may wax ak yow Ablaye Wade dafa changé woon constitution bi yëpp pour 68 indi beneen constitution bees. comme da engagé woon foofu yëpp day dañ mais yow bi nga ñëwee changé wu constitution bi da nga def ay changement ci biir constitution ba pare affaire mandat bi nga wax ni ñaari mandat la comme ni ñu ko waxee woon mais da wax léegi kenn mënut a amati lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo yu tegaloo nag bu doon 10 ans bu doon 15 ans bu doon 5 ans bu doon 7 ans ñoo yàlla mandat yu tegaloo na kon kooku amutu sañ-sañ pour que maanaam nekkaat candidat mais dialogue bi moom ci bëgg a jaar ay nit proposé comme ni léegi nañ dina situation supprimer limitation mandat bi lan lay wax si booba da koy naa sàmm ñu lay dialogue bi moo wax lii dañ d'accord si loolu ba pare après indaale benn am si collectif boo xamante ni tey dialogue bi proposé waale ko te ñun yooyu dil yooyu bokkuñu si dil ñun duñu ay nit dil ndax tey boo li may wax rek mooy kon dafa am opposition ñuy dil mais am na ñuy dil ah bon oui am na ñuy dil dil am na ñuy dil ñoo xamante ni tey jii Euh, bon lu bare bare bare yoo xam ne yàq opposition ñoom ñoo ko yàq di la Macky Sall mais ñun bokku solo opposition président Pape xam na ne yooyu bokk si ndax ñun dañoo bokkoon si coalition. da ngeen di tuddee tour nag da ngeen di da ngeen dem ci da ngeen dem ci télé yi di wax naan diw day dil. depuis 2019. waaw bokkoon waaw. coalition bi bi élection yi jàllee coalition bi jeex ndax man mii wax ak yow président Pape Diop moom ma si dugaloon. xamaloon naa ko tamit ñu ko nañu ànd ak Ablaye Wade fi mu jëm ñu jëm fa ndax Ablaye Wade nit la koo xam ni dafa am vision boo xamante ni tey bu nee Macky Sall gagné élection daf koy sàcc xam leen day sàcc élection bi mais comme amoon na président mooy circulé si parti bi ñu ànd ak moom si président yooyu noonu ma tegoon ko ay conditions première condition mooy idi day ñëw Touba diggante bi ma amoon sama papa si digg noonu mu dañ mu ñëw yendu ba pare ñaar yi ma jiite comité électoral pour bon ñu jox ma commune électorale ma génn fanweeri million ci sama xaalis laa génn ak fukki oto yoo xam maa ko pour campagne pour Macky Sall daan Touba man li ma waroon ñoom def naa ko mais bi ñu jógee élection ba tey jii ba yaakaar ne ko doon defal sax woo nañu téléphone wala mu félicité wala mu def ñu nang nit ki nan ngay ànd koo xam yëgu la man maa jël décision wax président Pape Diop ni ko nañ ñu tëjee coalition Idriss Seck bi bàyyi nañ coalition Idriss ñun delluwaat bi ñoo nga def fu na Idrissa na demal boppam ñun nañu demal suñu bopp ànd suñu coalition ñaareel bi mooy mënuma ànd ak koo xamante ni rakku ma Sall muy Aliou Sall dafay dem di wax ak Malick Gakou te Malick Gakou mooy loxo Idrissa Seck. Aliou Sall waaw. Aliou Sall dina wax ak Malick Gakou Aliou Sall dafay dem si Malick Gakou wax ak moom te jàpp naa ni loolu si boppam bu waxee Malick Gakou wax na Idrissa Seck te tey jii. Aliou Sall yaakaar naa ne sama Alioune Sall. Alioune Sall kay dina wax ku ne ba mu des Malick Malick Malick dina wax ku ne ba mu des Alioune Sall dama la bëgg information yi yëpp. waaw ah, déedéet déedéet. dafay dem kër Malick Gakou di waxtaan ak moom te Malick Gakou ku ne xam na ne mooy loxol Idrissa Seck. amiin te sax dégg naa ñu ni am na lu jot a génn ci chef l'opposition bi ci ay moyens tax ñu tàmbalee seen tournée yooyu noonu ñun loolu bu ñu ko déggee xam ko est-ce nañ nga si coalition boobu noonu ñun kenn du ñu jël loolu am ñun kenn du ñu conditionné. Alioune Sall moom ñun ay góor yoo xamante ne ñu ànd ak président Pape tuumaal ngeen ci opposition bi rek dégg nañ ci ñeneen tam ñuy wax ay dil dil dil te te duñ tudd ay tur. gis nga Alioune Sall xam nga Alioune Sall day gisee ak Malick Gakou. waaw Malick Gakou day gisee ak Alioune Sall xam loolu bu loolu dafa neexul sax dégg. nan la yóbbu si yoon parce que ñun. dama ni ñun ñu ñun ñu dëkk ak ñun ñun ñu dëkk ak ñoom xam nañu. askan wi Malick Gakou moom dina toogoo ku ne moom des Alioune Sall xam nga li ma yë li ma yërëm mooy askan wi ànd ak politiciens yi te xamuñu leen Alioune Sall dem na kër Malick Gakou seeti na ko day waxtaan ak moom day waxtaan ak moom léegi bu fekkente ni loolu amul dam na ñëpp si yoon waaw naa leen génnal heure bi wax leen moom ñoom ñaar ñoom naay ñoom ñaar ndeyi mbili ji kenn toog naa moom wax ma si loolu ni ma man damay gisantig diw ah bon oui kon loolu dëgg la li dafa garaaw. am na. kon ñun mënuñu concevoir koo xamante ne tey mooy suñu adversaire ba pare yow mii xam yow lañ nga bokk si coalition bi di gisante kooku ñu ko ba bokk loolu moo tax lu mel noonu. ñun ñoo bokk loolu loolu ñu ngi organiser seen tournée te ngi ñaan ñi yorin gi nga xam ne moom la ma Sall yore. ko tàmbali ci wàllum man. ko tàmbali. tàmbali nañ ko semaine bii ñu génn. jëlee xaalis bi ñu ko tàmbalee. fan lañ jëlee xaalis bi. Malick Gakou yow Malick Gakou daan dimbali ñii. am na après élection yi ba léegi est-ce que maanaam ñoom def nañu tournée. waaw non mais. élection amul dara amul. mais élection amul dara amul. waaw lu ñuy tourné waxtaan wi ñu déggoo wala nga xamante ni après élection yi ñëpp dañuy teel jàpp si bopp. yéen daal ba yéen daal ba ngeen décrédibiliser rek Idrissa ak Malick Gakou bi leen ji. te Malick Gakou tontu na ci Seck l'Observateur. li ma lay xam nee na moog Idrissa Seck dilewuñ tey dilewuñ. dama ne dama dama ne dama lay mooy. Aliou Sall ak Malick Gakou ñuy gis.